mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamualeykum wa rahmatullah sama mbokki concitoyen sénégalais yi ni ñu ko tàmmee di defee ci turu MPR mouvement pour la république xidmal xarnu bi eh, ñoo ngi dellusiwaat di waxtaan ak yéen ci li nga xam ni lu ñu soxal la ci réew mi ndax li am ay di jàmbat te am réew boo ci nekkee jàpp nañ ni mouvance pour la république di xidmal xarnu bi war na saa su nekk bu gisee loo nga xam ni luy njariñ la mu wax ko ci réew mi bu gisee luy lore itam mu alerte mouvement d'alerte la pour intérêt réew mi euh, ma bëggoon tey nag waxtaan ak waa réew mi ci ñeenti poñ bi ci jiitu mooy mbirum li nga xam ni politiciens yi ñoo ngi koy waxtaane fan yi yépp muy li ñu naan suppression de la ville ma bëgg ko leeral ndaxte ni ma koy déggee ñu koy waxee ba ci taska ci xabaar yi sax dafa mel ni waxewuñu ko nañ ko war a waxe ndaxte bi ñuy def ak de de la décentralisation Euh, la ñu xalaatoon ni sax ville mën naa ñàkk waaye ñu def ko muy projet projet boo gis nag day am test phase test ñu xool ba xam lan lay joxe boobu la ñu sosee commune yu bari yi ngeen dégg maanaam tasaare communes yi pouvoir dooley nguur gi ca kaw bu gouvernement bi ñu wàcce ko ba ci suuf ci gox-goxaat yi ba nga xam ni day mel ni commune li ngeen dégg ñu naan commune nga xam ni ab maire moo koy jiite day doon loo nga xam ni mooy nekkal gouvernement bi muy nguur gi ci askan wi ci gox bu ne loolu mooy décentralisation ci nasaraan muy maanaam séddale dooley góor nguur gi gouvernement bi ci gox-goxaan yi loolu moo waral bi ñu demee ba fii ci 2020 ñu seetlu nag ni gox-goxaat yooyu ñu def ay commune yàgg nañ di joytu yu bari ndaxte seen doole dafay néew ba yu bari dañ koy tële ñu seetlu nii noonu ñu def doone ay commune noonu lañ defee yenn ay ville ville yooyu itam am ay maire am ay yi mel ni ay commune ci ñoom loolu nag bi ñu domee ba ci mille 2020 ñu seetlu ni bëri na ay roofante yu ñu roofante diggante commune ak ville ba nga xam ni léeg-léeg moom mooy tax ba commune bi maire commune bi di ñàkk ay moyens yu mu liggéeyee ndax ville bi da koy ëpp doole tiim ko te léeg-léeg it ville bi day dox ci loo nga xam ni du doon wareefam wareefu commune bi lay doon ñuy xëccoo ay wareef ma jox leen exemple exemple bi mooy fu mel ni ville de Dakar xam ngeen ni ville de Dakar am na mairie am maire ñu ni maire Dakar waaye ci wet gi yi tamit. mais ville de Dakar Ndakaaru dañ ko dagg ay gox-goxaat bu ci ne am mairie ñu naan ko commune kon fi mu ne nii fii nga xam ne mooy biir Ndakaaru mais commune ba fa nekk mooy commune plateau Dakar plateau Dakar plateau boo ko seetloo ab commune la yore maire boppam Dakar plateau boo ko seetloo mi ngi ci biir ville de Dakar. te maire bi nga xam ni moom lañ naan maireu dakaar muy mairie Dakar moom ci boppam mi ngi ci biir commune Dakar Plateau kon loolu rek ware na ni loolu roofante la yoo xam ni dana indi gàllankoor ndaxte ñaari maire ñoo nga ci Dakar Plateau kenn ki mooy maire Dakar Plateau kenn ki nee nañ mooy maireu Ndakaaru kon ku ci nekk ay waaram mën na ruufante ak morom ma benn ñaareel ba ñu seetlu ni segam loolu dañ koo def ngir gouvernement bi nguur gi gën a mën a jege askan wi e, kon loolu nga xam ni dañ koy jox ci koom jële ko ci budget bi di ko jox e, ville de ville yi bu ñu ko jëlee kon séddale ko commune yooyu gox goxaat yooyu mairie gox goxaat yooyu gox-goxaan yooyu kon dinañ gën a mën a am kattan ak doole ak xéewal gu ñu mën a liggéeyale askan wi liñ koy bëgg a loolu moo waral ñun en tant que acteur de la décentralisation di ci liggéey xam ko ñu yàgg ko jooytu gis rëq-rëq yi mu indi yépp ñu jàpp ni ah bu ñu dindee fiil yooyu gën na dooleel communes yi dina tax ba communes yi mairie communes yi maanaam mairie gox goxaat yi gën a mën a am jumtukaay yu ñu mën a liggéeyale askan wi bu loolu wéyee ci wàll woowu tamit eh, damay dégg yenn politiciens ñu ni eh, président de la république eh, amul droit dindi loola loola ci boppam kon da ngeen war a xam ni loolu yenuwul maanaa ndaxte moom président de la république moo jël ci nguuram daal di koy séddalee wàññi ci ak nguuram ay compétence am ay wareefam jox ko mairie yooyu kon mairie yi dañ ko nekkal te président de la république ci li nga xam ni mooy suñu constitution Sénégal eh, moom moom mooy yore politique moom moo koy dawal ba ko gannaaw bañ ñu ko falee moom mooy wax lan fon la bëgg a jëme réew mi ñu fal ko ci mu jël jumtukaay ya mu xalaat ni moo ko moo ko fay yeggale mu doxal loola kon muy maire muy gouvernement muy ministre ku man di doon da nga am yow pour jàppale ko pour mu dawal politique am boobu ngir njariñul askan wi kon moom bu seetee ba ni maire mairie ville yooyu kat jàpp naa ni eh, ñoom dañuy néewal doole mairie yi gox-goxaat yi ba nga xam ni war naa def li tubaab naan équilibre budgétaire maanaam li ñuy joxe wàll yi ñuy joxe ci budget bi mairie yi war nañ koo yamale maanaam xoolaat ko ba nga xam ni mairie bu ci nekk dina ci gis boppam pour mën a liggéeyal askan wi ba tax na loolu dafay laaj mu dindi ñu ñu dindi ville yi di leen fàttali rek nii sax ville dafa dellusiwaat rek sax waaye ñàkkoon na itam ndaxte fu mel ni Ndakaaru lan nay jamono amul sax maire ville dañ ko ca defaatoon rek mais amutoon itam kon bu gisee loolu ba ni dañ ko def kon loolu droit am la kon dañ ko ca war a fekk si pour intere yi réew mi te ñun ñi nga xam ne ni ñooy acteurs yi centralisation maanaam ñooy liggéey ci mbirum maire yi ak gox-goxaat gis nañ ni loolu moom mooy njariñu maire yi maire yi nga xam ni itam ñoo yore. commune yépp loolu dinañ ko yàkkamti nañu ko ndax ñu mën a am jumtukaay li ñuy liggéeyee tax ndax itam ñu bañatee am ay jafe-jafe ci ville bu laan la fii nga war a yem nga naan ko fii laa war a yem bu loolu weesoo dafa am loo xam ne réew mi faw euh, si lu ci nekk ku nekk ak la nga war a def ak fa nga war a yem ak lay sa cër wolof njaay dani ku wàcc sa cër ah, foo dem kër koo dem daal fekk fa mu toog ci anam kon dañu seetlu ni depuis fan yu néew léegi daal li ñu seetlu mooy ñu bëri maanaam ñi nga xam ni ñooy liggéey ci entreprise yi bu ñu amee lu ñuy naq lu ñu naqarlu nga xam ni ci li yoon def mooy am nañu ay syndicat yu ñu mën a waxee seeni ñaxtu léegi dafa mel ni léegi loolu seen syndicat yooyu nag dafa am ñeneen ñu bëgg a jël seen place man ma jàpp ni nag ah, ku nekk ak sa wàll ku nekk danga war a yem sa place ndaxte léegi ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tuddee activiste eh, man xawma lu ma leen mën a tudde ci wolof sax waaye daal mënuma leen a tudde lu dul maanaam mooy ñaxtu ñaxtukat ñax ñi nga xam ne dañoo tuddee seen bopp ñaxtukat ñaxtukat ñu ne duñu politique waaye askan wi lañu nekkal dafa mel ni léegi dañoo bëgg a jël place wu yi ndax léegi li ñu seetlu mooy fu mu amee ay liggéeykat yuy ñaxtu ñooñu nu naan activiste ñooy ñëw fekk leen ca foñe ne di taxaw taxawaayu syndicat di jël seeni revendication yi ñuy wax di ko politiser maanaam di ko muur muuraayu politique ngir dal ci kaw ndàngam kilifa ndàngam walla nàngam te loolu neexul ba neexul am réew dafay ordonné dafay dañuy ñun li ñu gëm mooy dañuy respecter les lois et règlements bu ñu bëggee un état de droit li wolof li ñu naan ci wolof euh, état boo nga xam ni day sukkandiku ci yoon ku ci nekk da ngay yem ci la nga xam ni moom la la yoon jox waaye ca dëgg-dëgg jàmmi réew mi ak stabilité réew mi eh, nga xam ni naka la ko daan def la ko fi sos ba léegi lay doon kiiraay gi ba léegi war nañoo fexe ba loolu bañ a yàqu ci turu rekk ay nit ñoo xam ne dañuy jóg ni ñoom ay ñaxtukat lañ leen tudde seen bopp activiste ñu bëgg a jël place su syndicat yi waaw ñi nga xam ni ay ñaxtukat lañ tudde seen bopp eh, ñu leen di wax ci nasaraan activiste ñu bëgg a jël place su syndicat yi fu mu amee liggéeykat yu amee lu ñuy jax ñaxtu ñu ñëw jiite leen di ci dugal politique ci biir pour ŋàññ wala pour jëngal réew mi loolu jàpp naa ni lu war a dakk la euh, bu loolu weesoo euh, bëggoon nañoo wax itam ci mbirum feebar bi ñu naan Covid 19 loolu dañuy alerte askan wi dañuy xamal askanu Sénégal ni euh, xidmaal xarnu bi mi ngi. leen di dénk masque yi ñuy def am na solo lool waaye nag ñu bàyyi xel ci masque yi ñuy jël di jëfandikoo ndax masque yi nga xam ne dafa jóge bitim réew rawatina ci réewu nasaraan yi suñ ko mënee bàyyi di jël di ko jëfandikoo moo gën ndax moo gën a dalum xel ndax suñu naan dina màtteeg du màtte te nga mën koo bàyyi bañ faa bàyyi ni ñukk loola kon li gën mooy nga bàyyi ko fa te kat masque yi ñuy wax mu jóge bitim réew ci réewu nasaraan yi am na yenn boroom xam-xam yu seen xam-xam màcc ci wàllu paj ak wér-gu-yaram doomu aadama yoo nga xam ni dalul seen xel yoo nga xam ni jàpp nañ ni masque yooyu day am yu muy àndal yoo nga xam ni ku koy def ku koy jëfandikoo ah bu dul feebar boobu sax leneen mën na la caa fekk kon segam masque yooyu nag mënees na koo defar fii ci suñum réew kitmal xarnu bi di digal képp ko nga xam ni yaa ne ci réewum senegal ngay jëfandikoo masque yi nga xam ni dañ koo defaree senegal ñi bu mënee nekk sax mu doon ñi nga xam ni ñi ñi koy defar xam nga leen te loolu amoon na fi ndax suñu tailleur yi ñoo ngi doon defar ay masque yu mucc ayib bu loolu weesoo yi tamit toujours ci mbirum Covid 19 feebar boobu ñoo ngi xelal askanu Sénégal ci ñu moytu itam produit yi nga xam ni produit garab wala produit pharmaceutique wala produit ay ñam lu ñuy lekk ak naan yu jóge ci bitim réew rawatina ci réewu nasaraan si te it di ñaan service yi nga xam ni ñoom muy service d'hygiène muy douane. yi nga xam ni ci état bi ñoom ñoo war di saytu liy dugg ci réew mi ñu bàyyi ci xel ba di xool produit yooyu ndax yuñ mën a war a mën a jëfandikoo la lu mucc ayib la wala déet ndaxte daal dalul xel te fi mu ne nii dal nañ jamono joo xam ni ñun réew yi gën a néew doole muy réew nit ku ñuul yi war nañoo moytu bu baax a baax a baax moytu ñi nga xame ni dafa mel ni faagaagal ñu dal da dañ cee jóg loolu conseil la boo xam ni dañoo bëgg bokk ko ak sénégalais yépp ñu bàyyi ci xel bu loolu weesoo euh, problème mu liggéey ndaw ñi Sénégal faw ñu Euh, mën a di ràññee responsabilité yi maanaam di situer responsabilité maanaam bu mbir amee euh, am réew dafa dañ ko organiser ku ci nekk ak la nga war a dox waxoon naa ko ci kanam sànq nit ku nekk ak sa liggéey am na sa responsabilité boo ca am euh, kon war nañu xam ni lii di problème emploi moo am liggéeyu ndaw ñi état bi li ci wàllam loo nga xam ne moom dañ ko ko baal dara ndaxte moom mooy wàllam mooy teg ay conditions yoo nga xam ne ndaw yi bu ñu waree jàng dinañ jàng bu ñu waree utu xam-xam muy liggéey professionnel dinañ ko am dinañu wér e waaye tamit dinañu defar ba nga xam ni borom société yi ñi am. ay société ki entreprise dinañ leen bàyyi xel ba dinañ leen aar ba nga xam ni ñoom itam dinañ mën a jël ndaw ñooñu di leen embauché ñuy liggéey ci seen entreprise yooya li ma bëgg a wax foofu mooy ku ne xam na ni état fonctionnaire la am ci liggéeykat bu ñu jëlee exemple suñu Sénégal gi fonctionnaire yi matuñ sax benn ci ñeenti pàcc yi réew mi kon état kon war nañu xam ni ale yoon du mën mukk mukk mukk ñëpp mënuñoo doon ay fonctionnaire ci réew mi kon boog liggéey am xëy dañ ko war di xalaat ci wàll yépp wàllum mbay wàllum commerce wàllum industrie wàll yépp état nag li ko war mooy defar cadre boo nga xam ne ni képp koo xam ni yaa ngi ci commerce dina la jàppale ci lu muy aaree sa commerce ku nekk ci industrie noonu ku nekk ci mbay noonu ku nekk ci élevage noonu waaye itam ñooñu nekk ci secteur yooyu tamit il faut que ñu xam ni ku ci nekk danga am responsabilité ci xëyum ndaw ñi di jël ci ndaw ñi ñuy liggéey réewum Sénégal mooy réew mu nga xam ni bu ngeen seetloo bëri na lool ci suñu réew mi ay milliardaires yu ñuy wax ñii ñoo ngi ci commerce import export ñii ñoo ngi ci industrie ñii ñoo ngi ci mbay ñoo nga xam ni ay milliards liggéey nañ ko am nañ ko ci ay société yuy liggéey kon neexul ba neexul mais ñoom i tamit eh, seen responsabilité day nekk ci di man di jël ndaw ñi nga xam ni formé leen leen tàggat na leen di leen am bés waaye neexul ba neexul bu ñu waxantee dëgg fii ci senegal bëri na borom. industriel ak yi ñoo nga xam ni ay commerçant la ñoo yooyu milliardaires yooyu borom alal yoo nga xam ne ni boo demee ca ñoom eh, ñoo ngi liggéey ay milliards ci réewum Sénégal ay téeméeri nit di liggéey ci seen i entreprise waaye boo laajee ñan lañ ci embauché ñaata lañ ci embauché duñu la woon woññil fukki nit yuñ embauché loolu nag faaw ñu seetaat ko itam faaw ñu seet lu mel noonu ba tax na kon responsabilité dañ koy war di situer saa ne man li ma gëm mooy nu sommes des républicains waaye république dafa am nu muy doxe président de la république am na loo xam ni li mooy waram waree dañ ko koy war di laaj di ko saytu waaye noonu la ñu waree di laaje maire bi ay waree di ko saytu waaye noonu la ñu waree xamee itam responsabilité wareefu ki nga xam ni dafa sukkandiku ci cadre Sénégal réewum Sénégal di def import export wala mu am ay industrie ba am ci ay usine war di fay lempo de te fayu ko rax ci dolli mu war di embaucher ay nit te wul ci gone yi nga tax ne man li ma jàpp mooy eh, problème mu emploi ndaw ñi ñun ñëpp responsable lañ ci responsable lañ ci ba ci borom kër yi ndaxte boo yoree sa doom jamono ji war nga xam ni am na menn njàng moo xam ni dootul njàng mu moo xam ni mu méngoo ak jamono la kon boo yoree sa doom dugal ko lekkool ba nga xam ne am na fa mu toll ba am xelam ubbeeku am na meneen njàng moo xam ni njàngum métier moo xam ni war nga ci xërtal sa doom xiir ko ci sa doom mu jaral la ko pour sa doom jàng loola waaye itam bu jógee ca loola ci am entreprise loole di ko liggéey mu ñëw def fa stage juróom benn weer amal ko njariñ moom it te liggéey di am ay bénéfice ay milliards ci réew mi war na di embaucher ñi koy liggéeyal am réew neexul ba neexul e, bu ñu waxante dëgg am réew daal li ma ci sopp te li nga xam ni réew mu développé mu ne moom lay doxal mooy responsabilité yi daal dañ ko war di situer ku liggéey def lu baax nag ñu sant la gërëm la wax ko waaye ku def safaan itam ñu def li ci war ba nga xam ni loola dina dakk ndox intere réew mi rek moo am solo leneen lu dul loolu amul solo suñu jëmm yi dañu fiy jóge réew mi des fi kon sama mbokki concitoyen sénégalais yi ñoo eh, ñooñu ñëw daal di leen xamal ni rek réew mi daal politique du moo koy doxal politik mënta weesu ñu ni dañuy fal ku nekk wax fa nga bëgg a jëme réew mi ñu xool kañuy fal ñu fal ko buñ ko xasee ba fal ñu bàyyi ko moom mu taxal la nga xam ne moom la waxoon réew mi jum jol ci jumtukaayu réew mi doxal loola saa yu élection te ñu xool la mu def ndax baax naam baaxul askan wee koy décider xool ndax da koy continuer wala déet ba tax na ba ci lii nga xam ni ñett ñaa ngi koy wax ay troisième mandat troisième mandat man li ci président Macky Sall wax ànd naa ci ak moom muy du ci wax euh, bu ma sañoon it man duma ci wax waaye loolu it laay bëgg aussi nit ñëpp xam ko ndaxte dafa amul njariñ li am njariñ mooy fal nañ ko moom mu ngi doxal lemu ñu waa digoon ba tax ñu fal ko nañu dem jàppale ko ba loolu mat ba toll ci ba loolu jeex ñu xool ndax li mu liggéeyal askan wi amal na askan wi njariñ bu ko amalee njariñ ñu xam ni kon kat jig nañu te amal nañu njariñ mu continuer liggéeyal ñu bu ñu amul njariñ ñu seet keneen ku ñuy fal ndaxte kat maa ngi fàttali lenn président Abdoulaye Wade ba mu fi nekkee di daggatali yi lu ne wax nañ ko ko waaye Sénégal seet naa ba mu fa jógee itam ña doon wax naan président nii président naa dañ doon wax naan moom kay dañ koy yéex a jot wala bi dafa màgge ba mu yëkk rek waaye dañoo rëcc sax nu mu nekk fi nekk woon ndax li mu doon liggéey am na solo kon itam président Macky sàll bu fekkee ni bi muy ñëw ba léegi moom itamit mu ngi li mu ñu diggoon ci ay liggéey ci infrastructure ci école bi ci santé bi ci wàllu wu ci nekk di door a am beneen mandat di liggéey nañu ko bàyyi ba mandat ba jeex askan wi du politicien mooy naan moom mooy toog wala keneen ay toog du politicien mooy ñuy dogalal ku fi war a toog ak ku fi war a jóge askan wi mooy xool bu mandat bi jeexee li ñu président Macky Sall defal ñu comparé ko ak bi mu jël réew mi bu ñu amalee njariñ alhamdulilah askan wi delloowaat ko yokkalaat ko it muy ci réew mi parce que li ñu amal solo du ay président du ay jëmm waaye li ñu amal solo mooy askan wi mu Sénégal jëm ca kanam moo ñu amal solo ku ñu liggéeyal suñu réew kon nag dépendrul ci ay at dépendrul ci ay mandat mais mi ngi dépendre ci résultat ci résultat ci liggéey loolu la la war a dépendre waaye du ci ay mandat ak loolu jógal ma toog yooyu amul solo cim réew li ñu amal solo mooy résultat bi waaw ñun nag yaakaar naa ni président Macky Sall mooy suñu ñenteeli président kon am nag fu ñu jaar ci wàllu woowu lu xam ni war nañoo doy leçon ba nga xam ni yan yi mën nañoo bañ a dalati xidmal xarnu bi lii li gëm ni moom ci loolu lañu ñu war a dox muy lan xaar ba mandat ba mandat président Macky Sall jeex bu ñu liggéeyee loo xam ni doy nañu amul mandat bi ak mandat sàngam ak kii mooy toog ak keneen mooy toog askan wi mooy xool bu ñu demee élection bu ko du ko dee delloo ay série yi carte ñu delloo ko série yi carte bu fekkee ni lu doyu ko it mu ñu fal keneen waaye mandat ak kii moo war a toog ak ñaata mandat la war a def loolu ñun amalul njariñ askan wi ca dëgg-dëgg politiciens yi war nañu cee dimbali te ñu jublu ci liggéey bi te ki nga xam ni mooy nekk ci gaal gi di commandant gaal bi commandant bateau bi muy Sénégal ki ko jiite muy le président de la république ku mënti doon ku yàlla teg ko fi dañu ko war a jàppale ba nga xam ni gaal gi du suux ba ñu wàcc ak jàmm ak salaam loolu moom mooy nga xam ni moom mooy suñu xalaat ñu koy wax te di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa